أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñu ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid ba tey ñoo ngi ci qawluhu taala innama zalikum alshaytan yuxawifu awliyaa tey ñoo ngi jël waxu sunu yaay Aïcha radiyallahu anha wax ji nga xam ne moom la waxoon li Muawiya radiyallahu anhuma ndey Aïcha waxoon na Muawiya ne ko man arda allaha bi suxti nnaas kafaahu allahu muunata nnaas ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا day Aysa waxoon na Muawiya ne ko képp koo xam ne arda Allahu bi suxti nnaas danga ut ngërëmal yàlla ci meru nit ñi mu ne kafaahu Allahu muunata naas yàlla dina la fegal mbañeelu nit ñi wala bañeelu nit ñi wala noonu gi la nit ñi di noonu yàlla dina la ko fegal kon ndeke ab jullit lu mu war a def mooy sàkku ngërëmal yàlla donte nit ñi dañuy mer yow lu yàlla wax def ko ñu ñëpp jàng nañ laa taata li maxluqin fi masiyati alxaaliq kenn du ut ngërëmal mbindeef yi ci meru aji bind ji moo tax ndey Aysa waxoon Muawiya ne ko képp koo xam ne danga sàkku kontante yàlla ci meru nit ñi yàlla fegal la seen musiba waaye waman arda nnaas bi suxtillah lam yugnu anhu min allahi shay soo utee meru yàlla ndax nit ñi kontaan tey te tey loolu mooy li am lépp ci nit ñi mooy dañoo bëgg ku leen wax eskay wala jërëjëf wala waaw góor waaye ci meru yàlla wala bëgg am kontaante nit ñi ñëpp kontaan ci yow yàlla mere la ñoo bëri ci nit ñi tey loolu lañ bëgg mu ne képp ku def loolu nga ut meral mu yàlla ndax jaam ñi kontaan nee na jaam ñi dara luñ la dul mën lam yughnu anhu min allahi shay bi suxtillah kenn mënulaa fegal merum yàlla ba du këpp sa kaw musiba yàlla buy ñëw ci yow kenn mënu koo fekk kon jullit dafa war a gëm ne wallahu yaasimuka min annaas yàlla moo lay musal ci nit ñi waaye du mbindeef yi keroog ba yonent bi di jàngal abdullah ibnu abbas axiida tawxid da ko ne xamal xeet bi yëpp bu ñu àndoon bëgg laa dimbali ci benn mbir mu yàlla ne doo ko am mënoo fexe ba am ko waaye xeet yëpp bu nu àndoon contre la bëgg laa xañ lu la yàlla jox kenn mënta fexe ba loolu ñëw su ma ci joxe misaal bis bu nekk damay joxe xista Muusa ak Firawna Firawna lan la doon bañ Muusa judd wala ba taxaloon mu daal di tëral ay pexe ne xale bu góor bu judd rey leen ko wala su doon am mbindeef su doon nit mooy programme te mu yëg ne programme am bi kat feeñ na su ko nit ñi yëgee day yàqu bu la doon leer ne sax tey da ngay tukki waaye yëg nga ne ay band yëg nañ ne da ngay tukki parce que xaalis nga yor yëg nañ ko nooy def tukki boobu danga koy danga koy fomm la moo tax nga fomm ko c'est parce que da ngaa jàpp ne boo demee bu ñu la jàppee ci yoon bi yow da ngay ñàkk sa bakkan waaye xoolal yàlla programme programme am firawna woor ay njabarkatam njabarkat yi yëgal ko kat lii la yàlla programme mooy lii am lii mu nar a xew ci jamono bi moom firawna mu ne day contre dogalu yàlla boobu mu jël ay pexeem di rey li mu rey ci ay góor kenn xamul nu mu toll moo tax ku jàpp ne su ma reyee nit ñi li yàlla bëgg doo am da ngay nax sa bopp yàlla subhanahu wa taala bàyyi ko muy rey di rey ba xale bi war a judd judd rey ko foofu beneen bu garaaw mu ngi foofu xale bi bi mu juddoo kenn gisu ko wala yëguñu ko ak foofu xeetu boroom xam-xam yi liñ ci wax ci ay wax yoo xam ne wuute na bu ci nekk yéem moroomam waaye bi ci gën a doy waar mooy yàlla ne yaayu Muusa jëlal xale bi def ko ci kees nga teg ko ci dex gi dex gi dina ko yóbbu ci Firawna est-ce que xel nangu woon na kon mu judd encore Firawna yëgul ba pare yàlla di ko yóbbaat ci Firawna maanaam yow mii reyaati dinaa la dénk ki nga xam ne moom mooy judd ci sa keppaar ba pare bu màggee folli la yow mii yaa ko yar loolu moo ne yàlla programme yàlla nit mënu ci dara kon bul ut kontante nit ñi ci meru yàlla fexeel nga am ngërëmal yàlla boobu rek moom moo moom moo moo moo moo nekk loolu rabia rabia daan wax ne laytaka tarda wal anaamu xidaab yàlla soo kontaanee ku mer affaire am la looloo taxoon yaay Aysa ne Muawiya képp koo xam ne dangaa bëgg a kontaan loo yàlla ci meru jaam yi yàlla dina la xañ seen musiba waaye képp ku bëgg a kontaan loo jaam yi ci meru yàlla na nga yëg ne ñooñu mënaluñ la dara jaam yàlla yi mënaluñ la dara bis bu mbugalu yàlla di ñëw ci yow jaam ñi dara lañ ci mënul tey nag ci suñu jamono nit ñi ni ñu gisee mooy ah ut kontante nit ñi au lieu que de kontante yàlla ñu ëpp ci ñun lool la nañu ut kontante kontante doomi aadama yi fekk boobu moom amul benn importance mbokk yi fa man hadahu llahu wa alhamahu rushdahu képp ku yàlla jubal yàlla yenkewal ci moom njubam wa waqaahu sarra nafsihi yàlla fegal la sa ay bopp imtanaa min almuwaafaqa ala fi'li almuharrami sunu boroom subhanahu wa taala dana ko dimbali moom waa jooju yàlla jubal moom waa jooju yàlla yenkewal jub lan mooy yenkewal mooy yàlla moo jubal moo dugal ci sa xel ak sa xol njub ndax njub ci yàlla lay bàyyeekoo léeg-léeg nga bëgg nit jub du jub ku yàlla jubal nag kenn mënu koo réeral waaye ku yàlla sànk kenn mënta fexe ba mu jub moo tax yonent bu daan ubbi xutbaam mu ne man yahdihi llaahu fala mudilla la wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursida wala fala haadiya la ku yàlla réeral kenn mënu laa jubal moo tax mu ne képp ku yàlla dimbali nga jub yàlla yenkewal ci yow mooy wa alhamahu rushdahu yàlla may la nga jub yàlla yemul ci loolu waaye wa waqaahu sarra nafsi yàlla musal la ci say ay bi bopp imtana moom waa jooju dina teraw min al muwaafaqa ala fi'l al muharramat waa jooju moom dana danga ko fekk fi kuy teraw ci jëf-jëf ju araam lu tax parce que yàllaa ko jubal parce que yàllaa yenkewal jub ci moom dëppale ko ak njub parce que yàlla moo ko fegal ay bakkanam nga nit day lor boppam loolu moo tax ngay dégg ñu ne man amila saalihan fali nafsi wa man asa alayha nit day lor boppam ñaata yoon ngeen dégg alxuraan naan fala tuzlimu anfusakum bu leen tooñ seen bopp bu leen lor seen bopp da ngay dégg sax mu ne même ci jëw mu ne bu kenn ci yéen lekk yàpp moroomam ndax da ngeen a bëgg a lekk seen bopp chaque jour alxuraan daf lay wax sa bopp même boo koy def sa mbokk mu ne la sa bopp nga koy def defoo ko sa nit ki kon képp ku yàlla defal yiw yi da nga koy gis muy tere boppam jëf ju araam mu ne waaye du yem ci loolu wa sabara ala adawatihim day muñ lor gi ko nit ñi di lor daf koy muñ summa takunu lahu aqiba fi dunya wal axira gis nga lii nii su ko ku ko yàlla defal fan ngay mujj mooy àdduna yow yaa fi am ngërëmal yàlla àdduna waaye alaxira tamit yaa am kontante yàlla wa sabara ala adawatihim nga muñ loru nit ñi nit ñi lor yiñ lay lor nga muñ ko bu ngeen jàngee al usulu salaasa borom xam-xam bi bi mu lay jàngal li war ci nit bi mu ñëwee ci ñeenti bu mujj bi lan la la wax asabru ala al ada fihi woowal nit ñi waaye boo leen woowee ba ñu ñëw lor yiñ lay lor da nga ko war a muñ loolu la borom xam-xam bi di feddali fii mu ne nit na muñ ci noonu giñ koy noonu waaye képp koo xam ne def na loolu di nga am mujj ku rafet ci àdduna ak alaxira kama kaanat li rusul wa atbaihim comme ni ko yonent yi amee woon ak seen ñi leen toppoon yonent yi bi leen yàlla yónnee ñi ñëw di woote nit ñi xeex nañ leen def nañ leen lu ne waaye résultat bi fan la mujje mooy yonent yi ñoo am ndam ci kaw ñi leen doon xeex ba tey jii fii nu toog histoire mi ngi nettali yonent yooyu yàlla yónni woon seen peuple yi wala nit ñu bon ñi doon leen xeex ba fii nu toog ñu ngi koy nettali ñaata yoon nga jàng histoire nuux ñaata yoon nga jàng histoire ibrahim ñaata yoon nga jàng histoire Moussa ñaata yoon nga jàng histoire Isa ñaata yoon nga jàng histoire sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ñi leen doon xeex tey soo demee réew mu mel ne màkk nga egsi di def ziyaara kullu ziyaara medinatul munawwar wala nga dem makkatal mukarram nga ñëw ñu ne la kaaba gaa ngi nii kër ga la yonent bi juddoo gis nga fële ngay gis duusee leen muy kër abu jahlin xala loolu ak ñeneen ak ñeneen ñi ko doon noonu ñi doon noonu tey yonent bi kenn ci soo demee màkk doo fa gis mu kenn ku ne maay sëtu abu jahlin de maa ngi nii amuk même bu ko nekkoon sax pare na bu tuubee pare na ci bëggatul ku wax kii bokkoon na ak abu jahlin mi ngi nii toog bëggatul kenn wax waaye boo demee foofu tey saxaaba yi seen doom yi ñu àndoon ak yonent bi ñoom Abu Bakar Omar Ousmane ak ñeneen ñi mel ne ñoom xoolal ñi doon garde caabi jàkka ji kaaba gi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne woon caabi jàkka ji kenn du ko jël ci ñoom lu dul saay-saay mooy Ousmane ibnu Talha ba tey ji ay sëtam ñoo yor caabi yi mu leer na ne ñii descendant ay saxaaba la ñu ngi nii seen famille ñëpp ko xam nga gis ay famille kër yoo xam ne même ñoom buñ la ko waxul da ngay dégg nit ñi di leen joxoñ baaraam naan ñii sëtu nangam lañ nga gis fa ay xuraysi yu woo xam ne dañoo bokk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais kenn du ŋaang loolu loolu moo lay wan ne képp koo xam ne dangaa topp yàlla topp yonent wallahi alazim ay nit di la bañ di la xeex fu mu lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàlla moo ko wax wala aqibatu lil muttaqin mu jug rafet même ci àdduna bi xoolal caaxaankat yi fecckat yeeg woykat yeeg nangam nangam yi ak ñi nga xam ne ay nitu diine lañ ñan la fi seen tur di gën a yàgg diine dëkk boo dem nag noonu la dëkk boo dem lislaam nekk fa ña fa doon woote diine ak doon fa liggéeyal diine ak xeex fa ci diine wala ñu rey leen ngir diine ba léegi ñoom la fa seen tur yi nekk waaye saay saay saak nangam nangam ya seen tur raaf na bu yàgg kenn sax dootul bëgg a bokk ak ñoom moo tax mu ne loolu la yàlla def muy sunan ci ñi toppoon yàlla li atba'i rusul ñi toppoon yonent yi ar rusul wa atba'ihim ñi toppoon yonent yi ak ñi leen toppoon mun na summa axbar an xaali addaaxil fil imaani bila basira après nag ci dars bi lañu sëriñ bi di leeralal ñi nga xam ne dañoo dugg ci ngëm te amuñ ci gis-gis dugg ci ngëm mooy ngëm goo xam ne convaincreul doomu aadama comme tey sénégalais yi rek lépp ci sénégalais yi koo ci gis danaan man de gëm naa yàlla dama dem ci ngoon diggante tàkkusaan ak léegi dem naa fi ci benn kër di laajte maire bi ñu ne ma daw na ma leen fu mu daw jëm ah ñu ne ma nee na day wëri dëkk boo xam ne koor gi dana sori ndax koor gi daa jege si ma ne ko kooku de xaw ma fu mu jëm xoolal ma koy wax benn waaye ne ma ah kay am na fii fuñ dul woor de daan may tuddul benn dëkk mu ne dëkk boobu kenn du woor kenn ñemu faa woor sax ma ne ko da ngay wax rek mu wax turu dëkk bi mu ne ma moom rakkam bu jigéen dafa sëyi dëkk ba mais du woor mais bu ñëwee fii day woor ma ne ko lu tax foofu du woor mu ne foofu kenn ñemu faa woor ndax sëriñ bi fa dëkk dafay tere ku fa woor ma ne ko waroon ngaa changé turu sëriñ bi nag bul waxati sëriñ ndax sëriñ moom day digle lu baax di tere lu bon waaye di digle lu bon ñu koy nekkatoo sëriñ wala ba ana maire bi ñu ne ma daw na fan la dem ñu ne ma dafa dem dëkk buñ dul woor bi ma ne ko xanaa nekkul ci Sénégal mu ne ma ah kay ñu wax ma turu dëkk bi man nañu yàlla defal tawfiix nit imaan nit daf ci war a am conviction nit dafa war a am ngëm yàlla goo xam ne ngëm gi daf ci am yaqiin am ci kóolute waaye ngëmantu nii moo tax du dem moo tax lii mooy li ngeen di gis nii soo waxee nit mu ne la waaw mu nekk dëgg su la joxee rendez-vous faussé la lu mu la wax ay fen la ay naxaate tappale triant wor ah yooyu ngay dégg tey lu tax parce que ngëm yàlla moo amul ngëm yàlla boo amul ci société société bu du baax parce que ngëm mooy tax nit respecté kàddoom ngëm mooy tax nit respecté moroomu nitam ngëm mooy tax nit du war nit ngëm mooy tax nit du triande nit waaye bu fekkee ne amoo ngëm jàngeen ci sunna yonent bi alayhi salaam mu ne laa diinu liman la aqla la ku amul xel amoo diine waaye mu ne wala diin liman la imaana la ku amul diine ku amul imaan munoo am diine ku amul imaan munoo am diine da ngay làmbatu rek mais munoo am diine moo tax diine imaan moo koy samp saa yoo gisee nit mu am diine soo soo seetee ci biir xolam da nga fay fekk imaan maro bi gaa yi ñëw ne ñun gëm nañ yàlla daal di dajji seen wax jooju ne leen qulu amanna qalat al arab amanna yàlla ne leen qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wax leen jébbalu nañ rek waaye bu leen wax gëm ngeen mu ne wa annahu ida uziya fi llahi jaala fitnata annas lahu mu ne kooku di wax ne gëm na yàlla suñu ko loree ci yàlla mu def lor googu delloo ko nit ñi waaw fa ida uziya fillah jaala fitnata nnaasi lahu nit ku ne man gëm naa yàlla ñu lor la loo war a def mooy muñ lañ la waxoon asabru alal aza fii waaye nga ne gëm naa yàlla ñu lor la ngay jàmbat man bu ma gëmee yàlla ba léegi sama affaire baaxul loolu ngay dégg ñenn ñi fi booy boo fi sellale affaire yi day dem de bul sellal loolu tax yenn saa yi nga gis ànd ak ay nit ñu dem ci barab yu sell yi lu mel ne Màkk wala Médine nga gis ku fay def lu bon ndax dañuy jàpp ne boo fa defee lu bon sa xërëm yi day nangu gis nga loolu tax ay fan bu desee aj commencé dañuy aj sëru kaaba gi ba ci kaw hauteur 3 mètres nga xam ne nit du ko mën a laal ndax lu tax am na fa ñoo xam dañuy dem yor paaka wala ciseau di dagg ci sëru kaaba gi di koy ndaale moo tax matière bi ñu defaree kaaba gi tabax bi kenn mënu faa xoos ba ba dara génn ci ndax ay nit mu loolu la ñuy bëgg waaye da nga gis ku fa saw nga gis ku fa dem àll ba nii nii dem àll ba ñëpp di ko dëggati seen yére yàqu seen tànk yi tàq tàq parce que loolu la leen seen bu xa borom bu xaaba yi di wax ne leen su ngeen fa defee lii rek di ngeen am lii waaw ci jàkka yi ndaw ndawaan yi wala ci suuf sa wala ca xeer ya wala ci yenn place da ngay gis ñu ñëw di fa def yu bon yenn saa sa nga gis ñu fay njaaloo dem ba foofu di fa def yu bon ak feneen ak feneen wala bisu àjjuma nga gis kuy julli ji jumaa te du jàpp du sangu bal sax day yóbbaale janaaba ci biir jumaa ja parce que loolu lañ leen di wax nit ñi am na ci ñoo xam ne bëgguñu lu baax looloo tax dañ naan soo sellee doo gaaw a am alal soo jubee doo gaaw a am ba pare seytaane yi liñ lay naxe mooy soo nekkee ci lu bon rek am nga am alal bu bari parce que seytaane ak sobe ñoo dëkk waaye booy seetlu muy dem yoonam moo tax duñ ko bëgg looloo tax ñu war a bàyyi xel yu bare bari ci yu ñuy gis suñu société nekkul hasard mais ay pas-pas la yu doomu aadama yi fas mu ne léeg-léeg nga gis ci nit ñi ku ñu lor ci yàlla lu ko war mooy muñ waaye du muñ man daal bi ma commencé julli ba léegi gis naa ne daal damaa walaa kaana kon léegi lu muy def teg julli gi daal gis naa bi ma commencé nangam ba léegi daal dama alko xaw ma dara amoon na benn xale bu jigéen ci ay jamono yu xaw a yàgg tuuti ndeysaan benn koñ bu ñu doon fréquenté di leen waar di leen waar xale yu jigéen ñi di muuru suñu muuroo ji ñu leen di jàngal am ci benn xale bu jigéen ndeysaan bu muuru rek bàyyi faram far bi ñëw rek mu ne ko man ibaadulaa demal ma dem xam nga lim def baax na xale yi xale yëpp kontaan ndax léegi dàq na xale bu góor bi sori na ko mu toog juróomi fan amul xaalis mu ne leen eh man mi ma muuroo ba léegi damaa walaa kaana de est-ce que du ma woowaat diw gis nga ca suba sa mu daal di dindiwaat kol bi teg ci suuf ne bi mu muuroo ba léegi dafa walaa kaana maanaam loolu mooy jaala fitnatin naas ka azabillah loolu musiba la yàlla na ci yàlla musal mbokk yi mu ne waa jooju nga xam ne dafa bëgg jëm ci yàlla ay lor fekk ko ci mu jël lor yooyu askane la ko yàlla subhanahu wa taala lu tax wa hiya aazahum wa naylihim iyaahu bil makruhi ndax kat ci yàlla lañ ko loree ci yàlla lañ ko laalale lu mu sib lu mu bëggul lan moo tax lu bon laal ko lan moo tax lu mu bëggul dal ko puisque ba mu woote woo yàlla loolu la ko nattu yi dal comme nag ngëm gi dëgërul mu daal di simmeeku mbiri sànni ko fële wa huwa al alamu allazi la budda an yunaalu rusul wa atbaihim mu ne na leer ci ñun ne mbir yi ñu lay wax mooy li nga xam ne mooy métit al alam mooy métit métit yi nga xam ne laa budda munta ñàkk an yanaala rusul mu dal yonent yi ban yonent ci cent vingt quatre mille prophètes yi yàlla yónni ngeen jàng bu ya bu nattu dalul kan la ban yonent la nattu dalul wax leen ma turam ma gaaw ma continuer yonent bu yàlla nattuwul ndax am na ah yonent yëpp yàlla nattu na leen mbokk yi yëpp yëpp ñëpp la yàlla nattu amu ci kenn ku yàlla bàyyi moo tax da ngay dégg yonent bi ne ñi gën a tar ci nit ñi natt mooy yonent yi yonent yi ñoo gën a tar ay natt xoolal ayub xoolal Muusa xoolal Ibrahim xoolal Yuusuf xoolal Yaaqub dafa jooy ba am boos bët yi weex mu gumba gisatul ndax natt yaa Ayub jàngeen ñu ne dafa feebar ba sax yi di ko lekk moo tax ñi gën a rëy ci natt mooy yonent yi waaye ba leen yàlla nattoo ñoom nan lañu def dañoo muñ moo tax yonent bi bi ko yàlla di orienté lan la ko wax fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul fasbir sabran jamilan fasbir wa ma sabruka illa billah li nga muñ moo tax mu ne maadaama da ngaa bëgg a jaar ci yoonu yonent yi na nga bàyyi xel ne la daloon yonent yi dana la dal ak ñi leen toppoon jaala zalika fi qararihi minhu lii la yàlla def ci saxuwaayam lii mooy li wir mooy ku jaar ci yoonu nit ñu baax ñi la daloon ñu baax ñi dal la waaw waaw soo jaaree ci yoonu bon ñi it la daloon ñu bon ñi dal la rek moo tax booy jaar jaaral ci yoonu ñu baax ñi mu ne wa fi qaraarihi minhu fa tarkuhu alsabab allazi yunaalu bihi ka azabillah allazi farra minhu almuminun bil iman mu ne bàyyil xel saxuwaay bi nga xam ne moom la yàlla saxal ak bàyyi sabab bi nga xam ne ci la nit di amee xéewal yooyu mu la wax wala mu am mbugalu yàlla mbugal gi nga xam ne ñi gëm yàlla daw nañ sori ko lan lañ ko dawee mooy gëm ba ñu gisee ne ngëm mën na leen a jëriñ ngëm mën na leen a fegal ëllëg mbugalum yàlla ñu daal di daw jël ngëm làqatu ci farra minhu almuminuun ñi gëm yàlla dañoo daw jëm ci ngëm biñ dawee jëm ci ngëm lan lañ jël mooy bil iman mu ne fal muminuuna li kamaali basiratihim farru min alami azabillahi ila al iman gis nga ñi gëm yàlla dëgg ci seen basira basira mooy seen gis-gis gis-gis boo xam ne du gis-gisu bët waaye gis-gisu xol la ci seen gis-gisu xol lañu dawe jëm ci yàlla laqatu ci moom gëm ko pour yàlla musal leen ci mbugal bu mu leen war a mbugal buñ ko gëmul kon ndeke gis nga ngëm day musal nit loolu tax doomu aadama pour dundam bañ a sànku foog mu gëm yàlla soo gëmul rek am nga problème sa dund du neex àdduna sa dund dana yàqu àllaaxira moo tax mu ne fal muminuuna ñi way gëm yàlla yi ñoom ñépp lan lañu def mooy li kamaali basiratim ndax seenu matu gis-gis farru daw nañ min alami azabillah ci mettitu mbugalum yàlla waaye fan lañu jëm ilal imaani ñu làqatu ci ngëm yàlla tabaraka wa taala wa taxamalu ma fihi min al alami alzawa alzail almufaaraq an il qurbi mu ne wa taxamalu yenu nañ ñoom doomu aadama yooyu ba ñu dawee jëm ci ngëm yenu nañ ma fihi lépp lu ci nekk min al alaami ci ay métit allahu akbar loolu moo tax gis ngeen saxaratu firawn ba ñu gëmee yàlla firawna ñëw tëkku leen ci mbugal mbugal googu firawna tëkku leen ñoom lan lañu dékkoo mbugal moomu mooy seen ngëm yàlla gis nga loolu moo tax waa ji ne la sëriñ bi ne la ñoom kat yenu nañu metit yenu nañu ay mbugal ah lu tax ndax gëm gi ñu gëm yàlla tabaraka wa taala moo tax chaque jour ñi gëm yàlla da ngay gis gars yi bu ñu leen di mbugal dañuy yaakaar ne ñii mbir mi metti na leen wala mbir mi am na lu muy dellu ci ñoom dara fekk xamuñu ne way gëm yàlla moom mbugal da koy encouragé moo tax chaque jour sax boo nekkee ci diine amoo ay natt xoolaatal sa bopp est-ce que ci diine nga nekk dëgg-dëgg boo nekkee ci diine loolu gars yi naan na xumb te dagan amoo benn problème seetaatal sa bopp ndax diine ak ngëm nature am mooy ay métit lay àndal léegi bi may mujj a ñëw bi may fay sama télé maa ngi bàyyi information Égypte ñu ne danañ fa rey lu tolloog onze personnes ci frères musulmans yi président bi la ñu jiite Mouhamed Mursi lan la def lan mooy bàkkaaram lu mu def ba ñu war ko rey bëgg a teg charia islam moo tax àdduna bi ñëpp noppi kenn waxul te looloo doy waar ya daam ah bi non mooy rey nañ ko rek Euh, lan moo tax ñooñu ñëpp ñu dajale ne dañ leen rey ñooñu lan lañ def kenn mun laa wax def nañ dara kenn mënu ko mais li leen di tuumaal parce que dañu ne dañuy indi charia Égypte loolu kese la parce que dañoo gëm yàlla parce que dañu bëgg a changer dundinu Égypte ci yóbbu ko ci islam loolu kese la amul leneen mais maal asaf julli di àddina bi comprendre luñ waaye waxuma comprendre mais noonu aussi mooy sunan moo tax soo nekkee ci diine bu yeboo nga sóoraale bis mun na ñëw ñu rey la mën ngaa dee mën nañ la tëj mën nañ la mën nañ la amul lenn looy xalaat ci lu métti lu ñu war a teg nit lu dul mën na la dal waaw su ko sóoraalewul rek da ngay saalit sa pas-pas bu njëkk mooy yow jullit xamal ne lii may dund foog ma am ci nattu waaw diine moom du rek leen ndox mu sedd lekk yàpp tëdd ci mat la bu nooy yéeg ci kat kat saa yi nekkee ci diine amoon natt xoolaatal sa bopp waaw waxuma nga nekk diine comme sunu diine Sénégal de julli woor dem ñibbi sa kër tëddi waxuma boobu de islam boo xam ne yow da nga ko bëgg a dund laa wax nga bëgg ko dundloo nit ñi nga bëgg ko def loi islam boobu laa wax waxuma islam comme sunu islam bii waaw ndax ñun dañoo jël lenn bàyyi lenn dañoo saam diine dañoo jël lu suñu intérêt lu ñu neex ñu ne dañuy dund li leneen la ñu daal koy sànni fële ñu ne loolu daa metti loolu mënuñu ko ñu ñi bëgg a dund sharia laa wax ci kaw suuf bëgg a dund état islamique tey ñooñu ñëpp dëkk yooyu yëpp dañoo am problème waaw dëkk yooyu yëpp dañoo am problème waaye dëkk yu nga xam ne comme sunu dëkk yi la moom ñu ngi noos ñu ngi ñu ngi dund ñu ngi nekk ci seen cakaay da ngeen barki dem seen doom yi lu ñu doon def jurbel dégg leen ko ci rajo xale jigéen yi lu ñu doon def soirée lan bombas ñaata at la ñam ah ay 13 ans ba 7 ans 17 ans ay xale yu toll noonu dem uti soirée di waaye man de yedduma xale yooyu yedduma leen yedduma leen xale bu am 13 ans mën a génn këram tàggoo fanaani àll def yu bonam loolu ça veut dire que amul tarbiya éducation moo fa nekkul gis nga ginnaaw gee xale bu jigéen booy gis mu dox ci mbedd amul kilif waatal ne amul kilif ginnaaw gee laa wax xale bu jigéen booy gis ci mbedd bi muy tambaambalu amul kilif jigéen ju baax du génn sax bëccëg waxuma laa guddi xale bu jigéen bu baax du génn sax bëccëg waxuma laa guddi waaw wala bu génnee bëccëg farata lay def yi génn luwaat këram ni tambar lambar lambar yi ci mbedd li xew léegi nii ak col gu bon gi alhamdulilah sax tàngaay bi mu ngi daje koor mais suñu yàlla natt woon tàngaay bi dugg nii dajewul ak koor dana métti trop donte ne koor gi dina ci wàññi tuuti mais du wàññi lépp mais dina wàññi tuuti ndax am na ñenn ñoo xam ne sax bu ñu wooree moom danañ changé habillement ak comportement tuuti loolu yàlla defal tawfiq kon diine ngi noonu du yomb day metti rek waaye nag ñi muñ mettit bi ñooy ñiy rëcc ëllëg ànd ak seen ngëm dugg aljanna mbokk yi wa haza min daafi albasira nee na bokk na ci yambare gis-gis yaa fuusu ngëm mooy jël noflaay wala jël bànneex wala jël bànneexu nit ñi ci kaw meru yàlla nga sànni fële ngëm ndax kat bu ma gëmee nit ñi bàyyi ma su ma defee lii nit ñi daw ma su ma doomu aadama buy jaamu yàlla ba pare di ci xalaat ay nit doo dem moo xam julli la moo xam koor la moo xam dund sunna la moo xam dund am imaan ngay sóoraale ay nit même bu dee ki ngay sóoraale papa la wala yaay wala jabar wala chef wala démb benn xale bu jigéen daf may daf ma woo téléphone du xale sax mag la daf may faral di woo di ma laaj ay question démb daf maa jox benn xissa mu ne dafa dégg benn xissa bu ñu doon nettali xissa bi nuroo xissa papaam nee na papaam da doon liggéey ci benn société boo xam ne benn tubaab moo ko moom waaye kuy signé contrat ci société ba dañ naan la fii doo fi julli nga ne waaw papaam bi mu ñëwee di signé waa ji ne ko doo julli mu ne ko damay julli de waa ji ne ko fii kenn du fi julli mu ne ko ah ne dinaa julli mu signé ñu déposé këyit yi mu commencé liggéey nee na muy liggéey di liggéey di liggéey ba benn bis julli jot rek paa bi daal ne gars yi jàpp leen ñu julli ñoom ñoom ñu jàpp mu ne mu jiite leen bi ñu kàbbaree xaw ma benn ràkk lañ am xaw ma ñaar ràkk lañ am gars yi daal jékki-jékki nañ rek am ku ne tubaab baa ngi ñëw rek ñëpp daw bàyyi julli gi te paa bi moo doon imaam bi sàppee ci ginnaaw yëpp daw ñu ne tubaab bi ñëw taxaw xaar ko ba mu pare tubaab bi ne ko fekk ma sama bureau mu ñëw tubaab bi ne ko yow lan laa la waxoon ci contrat bi mu ne ko man tamit lan laa la waxoon tubaab bi ne waxuma loon fi kenn du julli mu ne ko waxoon naa la man damay julli tubaab bi xool ko ba jaag ne ko daal di woo ñëpp ñëpp ñëw mu ne yéen ñëpp dàq naa leen ba mu des diw ñu ne lu tax mu ne kii moo trahirul boromam yéen da ngeen trahir seen borom bu ma ànd ak yéen ngeen trahir ma te lu ngeen ngeen ñëwee. na dëgg kuy julli gis ni daw koo trahir sa borom ku trahir boromam nag boo àndee ak morom boo àndee ak moom. lay trahir wala du la trahir wallahi da lay trahir loolu tax alxuraan di wax xam nga nit ñi duñ dul dégg wala tunkihul musrikaati hatta yu'minna wala amatun mu'mina xayrun walaw ajabatkum yàlla nee na bu leen takk bokkaalekat bu jigéen ngeen takk jaam bu jigéen bu gëm yàlla moo gën ngeen takk driyanke gor noonu ngeen koy waxee ah bokk ci yax bu rëy fekk day bokkaale waaye yàlla yemul ci loolu mu ne yéen jigéen ñi julliti bu leen seeg bokkaalekat yu góor yi kuy bokkaale yàlla nga defen du bokkaale nit mais nit ñi duñ dégg alxuraan yàlla loolu lañu wax gis nga ku war yàlla billaahi wallahi wa taala loo ko dénk dina la war mooy nit ku gëmul yàlla gis nga sunu sunu xolal sunu politique bi Sénégal fukki at yi ñu tool yëpp problème mu lan la nam ay milliards milliards yooyu lu tax mu sànku lu tax mooy jikko yee yàqu mooy am nit ñi amuñu diine amuñu ragal yàlla kon bu nax suñu bopp ku trahir boroomam billaahi wallahi wa taalaahi fun la dugal di nga trahir ñooñu nit li koy contrôler mooy yàlla ittaqillaa xaysma kunt ragalal yàlla foo mën a ne ndeysaan waaw waaw ndeysaan ndeysaan Abdullah ibn Omar fekk na sàmmkat mu ko jaay ñu ci xar yi benn mu ne ko moom ma ko de mu ne boo demee nga ni boroom xar yi till yi moo ko fàtt gaa yi nee nañ Abdullah ibn Omar daa di ne sàmmkat bi ayna allah ana yàlla mu xam sàmmkat bi waaw daan ne abdullahi ibnu omar ayna allah gars yi nañ abdullahi ibnu omar dafa xam ni mu ximmil ko mu dem jënd jaam bi jënd xar yi goreel jaam bi may ko xar yi ñeneen ñi ne Omar papaam la moo ne woon sàmmkat bi jaay ñu ci xar yi sàmmkat bi ne ko te di nga bëri àddiya de sàmmkat bi ne ko ana yàlla ayna allah ñu ne Omar téye ci sikkim bi naan qaala raai ayna allah allahu akbar sàmmkat bi nee na ana yàlla qaala raai ayna allah ndeysaan wala ñii dañu ragale woon yàlla wala ñun Omar dafa jommi keroon téye sikkim bi naan qaala raai ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla aka neexoon nit ñi teg baat boobu seen kanam ayna allah lépp looy def nga ni ayna allah benn seex bu tudd Cheikh Mansour Assaami ci ay vidéo yi muy def ay podium islamique yi muy organisé mu ne benn xale bu góor dafa dugg ci marché bi di jënd rek seen benn xale bu jigéen bu sol sol lu bon rek xelam dem ci naa waaye naa naa xool xale bi waaye naa ma dundal sama bët nee na bu mu nee xale bu jigéen bi jàkk rek aaya alquran ñëw ci kawam alam yaalam bi anna allaha yara nee na aaya bi moo ñëw ci moom alam yaalam bi anna allaha yara rek nee na boo rongoñam yi daal di tuuru mu jooy génn marché bi xale boobu nee na bi mu ñibbee keroog yëg na bànneexu ngëm yàlla ci xolam yëg na tey alquran contrôlé na ko ba amul bàkkaar loolu mooy ngëm ngëm loolu lay def ci nit alam yaalam bi anna allaha yara xanaa xamoo ne yàlla ma ngi lay gis soo gëmee ne yàllaa ngi lay gis sa lépp day jub dootu laaj police dootu laaj gendarmerie dootu laaj douane dootu laaj xoolal yooyu may wax yëpp am nañ ko tey ndax jub nañ parce que démb damaa dem police ànd ak benn mbokk ñu dem ñu fekk gars yi ñu leen di génne di leen yóbbu tribunal xam nga bu ñu jàppee ay nit après trois jours wala quatre jours dañ leen di dañ leen di defeer ma fekk ñu fekk ñu leen di defeer di leen yóbbu mais li lay wan ne dëkk bi dafa yàqu nga dégg xale yu góor yi nga xam ne ñoo seetaan si woon seen copains yi ñu jàpp naan xoolal gaañ affaire u góor la bul tiit ay affaire u maan kii seen baat yooyu quoi bul kii xoolal affaire góor la day metti ma dëgëral ki ma àndaloon ne la lii kay du affaire góor affaire góor kay mooy nga liggéey ñibbi sa kër tëdd benn pap benn paa ne ko booy waaye doom wax nga dëgg de affaire góor kay mooy nga bañ a nekk ci banditisme da nga nekk ci lu baax nekk ci lu baax mooy affaire góor mais nekk ci caaxaan loolu kay du affaire góor affaire góor mooy nga gëm yàlla affaire góor mooy nga nekk jullit affaire góor mooy nga gëm sa bopp bañ a dugg ci caaxaan bay duggi police loolu mooy affaire góor mbokki jullit yi dañu yëg ne ngëm yàlla rek mooy dëgg ñàkk gëm yàlla pertement la mu ne nit bul ut lu neex nit ñi ba nga daw santaane yàlla tabaraka wa taala mu ne perte dëgg-dëgg wal xab na kullul xab na perte dëgg bépp perte mooy doomu aadama mu tànn li neex nit ñi mu tànn kontaante nit ñi ci meru yàlla tabaraka wa taala wa farra min alami saa ila alami labad mu ne nga daw jëm ci mettitu benn heure nga bàyyi mettitu alaxira nga xam ne dafa sax dàkk xoolal méttitu benn heure lii ay xas la méttit la dóor la méttit la dàq ci liggéey la méttit la mais benn fan la après nga war a daw loolu nag léegi nga tàbbi ji ci mbugalum yàlla moo xam ne ilal abad kay musiba la dof rek mooy def loolu mu ne fa iza nasara allahu jundahu wa awliyaahu qala inni kuntu maakum wallahu a'lamu bi man tawa alayhi sudurahu min an nifaq mu ne ker bis bu yàlla defee nag ndam ñëw yàlla may way gëm yi lu leer loo xam ne ci yàlla rek tabaraka wa taala la bàyyee ko ndax yàlla moo ko defal way gëm yi moo ko defal xaritam yi nga dee qaala mu ne inni kuntu maakum man de maa ngi àndoon ak yéen te boobu wallahu aalam bi man tawa alayhi sudura sadrahu yàlla xam na la xol bi nëbb min an nifaaq ci ak naafiq kon mbokk yi darsu tey fii la jeexee ñoo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu jéggal ñu juumto yi li ci jub ci yàlla la bàyyeekoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu